après une de concours nous ba accompagner les élèves au niveau des établissements di xol nan problèmes jàngé yeen problème la am des fois composition su joté ñu rassembler pour défal fois des cours de rattrapage gratuitement Comme donc c'est l'initiative de la zone 1 de l'Orecab de Kaolack pour voir que le ak le système éducatif Nous nañ la zone 1A de cadre de Kaolack desee la le président Pape de' c'est quelqu'un que nous l'avons connu à travers cette zone là Nous avons le parrain de la zone depuis Bob pour la première fois dans l'histoire de la zone trois années successives amul benn jour buñ ko mos defal une proposition de budget mu wàññi ci 1 franc au contraire su ko yokkul du ko wàññi kon tey c'est une fierté pour la zone 1A de l'ODCAV de Kaolack ñëwaguma ci Kaolack damay wax fi ma bokk c'est une fierté pour nous tey gep ko xamné am nga koy titéro, ñun am nañ ko ñuy titéro parce que li japp lé gis nañ ko toute obéissance politique muy société civile wax naa ko barke démb dinaa ko waxaat ñépp ñoo am l'obligation de soutenir d'épauler ce fils de Kaolack la réussite de ce fils de Kaolack c'est la réussite de Kaolack c'est la réussite du Sénégal je vous remercie de votre sant sunu borom ñun dañu bég tey te ñëw ci ñëw bi ñu ñëw fii fekkee cérémonie bii nga xam ne dafa am double symbole moy récompenser ay xale yo xamné dañ doon jonganté ñu tuddee leen petit génie. wayé benen un symbole bi moy ki nga xamné moy mooy doomu région de Kaolack di Pape Demba Bitèye dafa continuer di accompagner académie de Kaolack jënd 2500 fascicules pour jox ko suñu élèves seconde première ak terminale lolu mom lu ñu doon xaar la ndax ñun ñëpp xam nañ ne ku dugg ci suñu lycée yi xam nañ ne soxla la ci ñun waaye moyens yi amuñu ko pour def ko te xam nañ ne ci assises yi président de la république def ne nañu def lépp lu suñu kantu kemtulay kàttan pour que euh, série scientifique yi ñu leen di gën a euh, dooleel si njàng mi ak njàngale bi parce que ñëpp xam nañ ne pays yi nga xam ne dañoo développé développer ñu tamit science yi bokk na ci li len taxa décoller te Sénégal bokk na ci bëgg na émerger nous sommes en pleine émergence té monsieur le directeur général dégg na cadre du président de la république té comme mom liko fi tax a accompagner président de la république conclusion assise bobu mom la dëgëral jënd fascicule science yi pour élèves seconde ak première ak terminale ñu ko ciy sant di ci gërëm lool la ci doon bëgga a wax di leen jaajëfal yéen ñëpp ci seen déglu bi merci. di wax rek ne yeen xalé yi li ni nak ñu def du dara 2500 anal je wax nako les matières scientifiques l'inspectrice wax nako et également bu ñu waxtane man ak mom daf na ma y 11 établissements qui ont eu plus de 50 pour cent. suñ leen joxoon ordinateur ak imprimante dina baax muy nii indi naa kon donc monsieur le chef d'établissement ce que je viens de comme ça c'est sur l'initiative de l'inspectrice d'académie parce que bu ko waxuloon du ma ko xam bu ko defuloon soxlaa du yegsi te bu koy yëglewuloon aussi du mun a faju kon bara jàmm leen di wax rek ne nii lañ bëggee Kaolack ni lañ bëggé mu nekk fep fu nga xamné ne war nañ fa mëna taxaw yëkëti pour mu jox ñu àndandoon ñu bokk ko en tout cas xam leen ne c'est je suis votre partenaire taxaw na paré na fep fu nga ne war nañ fa mëna taxaw ñu def ko ñu bol lu ma leen di wax nak moy que ni li buñ ko gis comme lo ni lu yombul yombul mais dafa di investissement la ñuy def si yéen dañu am yaakaar si yéen dañu xam ne ëllëg si biir war ngeen mun a taxaw raw ñu ndaxte lu ma ko waxee condition yaa ngi fi ëllëg baa ci si avenir baa kon boog da ngeen di gëm seen bopp ngeen xam ne fii lii ngeen nekk nii xëj na ñun buñ fi nekk amuñu woon sax lii ngeen am kon boog yéen war ngeen mun a ñëw dépassé ñu te lépp a ngi fi. di wax ne daal maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. di len jox rendez-vous fi ak ay fan li moy nek crème parce que madame l'inspectrice suñu devise dañ né ñun mënuñu régler problème yëpp mënuñu régler problème ku nek kon ya ko li nga xamné mom moom la ñu yàlla xéwalal ñu jël ko def ko fo xamné ñëpp dinañ ci gis sen bopp c'est ça la démarche de crème c'est ça le social collectif c'est ça le social que nous voulons prôner lool motax ñuy def action yi ma ngi leen di gërëm di leen sante jërë Música